di nga fa dem. dama ne la dafa am loo xam ne duma ma ko dialogué man li may dialogué xam nga lan la. Ah. conseil constitutionnel paralysé na texte bi loi bi ñu ne nañu reprendre procédure ñu waxtaan xool na ñuy changé délai. non non non xaaral nga ne conseil constitutionnel. xam nga conseil constitutionnel dañ ko déféré mun na ne man li ngeen ma indil lii musiba la parce que da ngeen yokk mandat président te loolu bokkul ci li nga xam ne lii lu ñu war a réviser la ci constitution. mooy le précédent de 2016. te tey nag waaw Sénégal dafa am ay kàngamu droit ñëpp wax nañ kàngamu droit yi dañu wax ba pare waaw kàngamu droit yi dañu wax ba pare bind moo tax damay rendre hommage les universitaires di rendre hommage les jeunes di rendre hommage tous ces gens de la société civile tous ces gens qui se sont pour refuser sa report bu ñu demee ba ñëpp wax loolu conseil constitutionnel ne ah man de li ngeen may indil mënuma ko nangu bu boobaa dañuy reprendre procédure bu boobaa ñu ñëpp dañu war a toog waxtaan ñu ne 21 jours la woon campagne bi léegi xejatu fi 21 jours nañu xool 21 jours yi chaque candidat 20 jours tu as 30 minutes 3 minutes 3 minutes une heure de temps on dit ok nañu waxtaan 5 candidats par jour pendant 4 jours ku nekk am une heure de temps tu parles au Sénégal ñu pan jël une loi changée le dispositif pour la campagne xam nga loolu leer mhm. ñu mettre ñu couvrir les meetings de clôture de tous les candidats ba pare ñu jël un jour de repos def élection yi le cinq bu dee dans le pire des cas vingt cinq dafa nar a poser problème ñu ra ñu pousse ko d'une semaine ñu xool naka la ñuy naka la ñuy arrangé pour def campagne électorale bu demee ba xat ba war a xat diggante premier tour ak deuxième tour ñu changé délai de recours yi fexe ba nga xam ne diggante bi dina wàññeeku. te sax deuxième tour fu ñu jëm man premier tour lay gañ ah waaw yow waaw may gagné premier tour weddi woon nga fi Macky Sall devant Amadou Ba weddi weddi woon nga fi devant Bassirou Diomaye weddi woon nga fi Macky Sall waaw waaw weddi woon nga fi Macky sal waaw waaw man li ma la wax jàpp ko léegi ñu ne diggante premier tour ak deuxième tour nañu ko raccourcir on a une élection le deux mandat président jeex le trois ñu def passation de service maintenant le nouveau président il faut qu'il ouvre un dialogue non balaa boobu jaloog le seul dialogue bi ngay participer mooy jaloog boobu nga xam ne conseil constitutionnel day rejeter mbir yi ñu war a tënku ci amal élection bi dans les délais requis dialogue bi ngay participer mooy dialogue ba ñuy décider nan la ñuy teniree élection bi ba le deux passation de service mun a beneen dialogue nekkul à l'ordre du jour beneen dialogue rek boobu rek ngay participer. actuellement beneen jaloog dafa nekkul à l'ordre du jour. parce que kaay ma wax la dialogue boo xam ne da sukkandi ci loo xam ne dafa illégal. ñu jox ko ñi ko war a àtte te àttee guñ ko nga ne da ngay xool noo ciy participer ça veut dire que yow xamul la. léegi moo am beneen hypothèse. waaw hypothèse que conseil constitutionnel ne déclaré wu incompétent comme c'est la tradition euh, euh par rapport a euh, à à, à l'analyse à l'appréciation d'une loi constitutionnelle ñoom Serigne Mboup ñoom Kader booy ñoom def nañ une tribune mm-hmm. ñoom ay pourquoi ma koy woowee Serigne Diop maa paa bi dafa bañ a wax paa bi depuis dix ans maa ngi koy topp interview le meilleur constitutionnaliste au Sénégal et en Afrique Serigne Diop war di jël kàddu gindi askan bi mais Serigne Diop nangootul wax il s'est barricadé il s'est amuré. non wax na euh, ah non wax na mais nañoo toog mu waxtaan ak ñun gis nga boo xamee boo xamee boo xamee droit bi nu mu nu mu tëddee Sénégal euh, man. Serigne Diop dafa ma jàngal nekk sama professeur premier cycle nekk sama professeur DA général DA sénégal DA spécial nekk sama professeur ENAM de droit ma xam nga bu baax mu nekk disciple le grand professeur waxee droit public interne na ko wax bu Babacar Gueye waxee nekkoon sama prof également droit international bu Babacar Gueye waxee ah, ah am na ko wax bu professeur Kader booy waxee nekk maître ci droit privé ah xam nga ne am na ko wax bu Fall wax bu Bordeaux am na ko wax bu lekk l'excellent Alioune Sall waxee ci droit xam droit ci biir ak ci biti droit communautaire <coughs> ñooñu bu ñu waxee. war nañ leen topp. ma ne waxuma war nañ leen topp ñooñu bu ñu waxee rek. wax ji tënku wax ji tënku léegi Serigne. donc hypothèse bi ngay wax. non xaaral ma yeggali Serigne Mboup ak ñoom. Kader Boy ah Serigne Diop professeur Serigne Diop ak ñoom Kader booy ñoom démentir nañu cette thèse là et puis prouver nañu euh, par une démonstration que elle ne tient à rien mais wax ji conseil constitutionnel moo nar a àtte léegi bu conseil constitutionnel déclaré incompétent cour suprême. rejeté le, le, le, le recours là ça veut dire que le report est acté Macky mu ne ñëw leen dialogue dialogue boobu di ci dem wala doo ci dem euh, xam nga hypothèse bi ngay wax man day pour man c'est l'hypothèse de la crise bu loolu amee ci la crise di doog a commencé xam nga ñoom dañu créer une crise <clears throat> su mu nekk nii ñu ngi ci germe crise bi bu hypothèse boobu réalisé wu hmm. on va entrer dans la vraie crise parce que personne ne va reconnaître Macky Sall comme président de la République après le 2. ba nga ko reconnaître ban ban ban pouvoir ngeen am. Euh, loolu da ngeen ko tere da ngeen ko mën a tere administrer l' administration dama lay expliquer. da ngeen ko mën a tere administrer la justice. da ngeen ko mën a tere xam nga xam nga 2019. Euh, et engager le Sénégal 2019 opposition bi yëpp on n'a pas reconnu la victoire du président de la République. mais. lu mu ko wàññi. ñun li ñu xam mooy que situation bu amee dinañu aviser ensemble avec toute l'opposition et la société civile. mais mais tontuloo ma di nga dem ci dialogue boobu. xam nga loolu laa lay ma mënu dem ci dialogue hypothèse. ah si. boo mënee dem ci dialogue première hypothèse boo nee boo boo mënee nangu benn dialogue bu bu découlé d'une première hypothèse. war nga mën a nangu dialogue parce que hypothèse boobu laa nangu cest à man amul hypothèse ci affaire bi benn solution la mooy nañu respecter les règles organiser élection donc ci loolu laa mën a wax man képp ku wàcc loolu wàcc nga yoon ku wàcc yoon du ma envisager man dara ak yow actuellement mais Boubacar xam nga yow